gis ne que turu bi nga xamante ni moo génn mooy coalition Idy 2019 donc di remercier ñëpp ñi nga xamante ni jàppale nañ ñu bi mouvement bi commencé ba tey lu ci dox di ci wax te loolu moo tax ils ont voulu même faire des mobilisations mais on ne l'a pas voulu plus que ça surtout pour des raisons de sécurité donc euh, maa ngi leen di déglu bu fekkee am ngeen ay laaj et après incha allah ñu waxtaan ci ba jox